Un sentiment de satisfaction parce que c'est la grande zone moi organisée la zone 2 euh, comme c'est ma zone j'ai été président de cette zone là et que les ñaari équipes yi nga xam ne c'est de grandes équipes donc on va ASC Renaissance et l'ASC euh, Taaxi Kaw lu que le meilleur gagne et que le match se déroule dans le fair play et dans la fraternité merci beaucoup. Euh, reporter le match Taaxi avec ak Renaissance du final boo la seen D'ailleurs, le coup d'envoi vient d'être donné tout de suite euh, par, euh, euh, par Dego. Mais j'ai eu l'impression qu'on est fait à round d'observation. Parce que dès le début de la partie, Dego de Founir Songo. waaw Renaissance nak, ku c'est une équipe qui a gagné la finale parce que moi c'est équipe qui a gagné la contrairement à Deggo bi nga xam ne souvent dinay déglu équipe final mais malheureusement il manque de concentration yu ndaw dina tax mu ko mais cette fois-ci je ne pense pas que mu vais me comme ni parce que tax kaw bi mobilisation bi mu def ak ni mu mel je ne pense pas que mu mu me mu am lu mu perte fii tax kaw moo am coup franc bi. coup franc bi nga numéro 17 tax kaw bi sur le plan gauche centre Nako, c'est un très bon centre.

taxawu renaissance ne du ko bàyyi comme ni avons ko waxoon rek taax kaw ci ay compte relevé train de fi mu nekk nii ci qui lay moom lay mais attention renaissance actuellement dafa ñew pour euh, euh, défendre kubam kub bi mu jëlon té mi ngi ci sont sur la bonne voie est-ce que foofu lay mujjee wala du fa mujjee nag ah, xamaguñu mais en tout cas ils sont sur la bonne voie parce qu'actuellement, ce sont eux qui qui qui qui dominent la partie donc ñu pour renaissance coup pour renaissance attention que va tirer pour renaissance coup que va tirer coup pour renaissance militaire mom le boy, militaire bi di militaire pour renaissance bi jël na élan doon coup bi très bien tiré attention attention Touche pour Renaissance qui va effectuer le latéral droit. Attention, ballon centré pour... Bonne, bonne balle pour le gardien. Encore 5 minutes de jeu. Ballon dégagé par la défense, la défense de Renaissance sur la touche. Touche pour Tahikaou. Touche pour Tahikaou. encore touche Maintenant, bi génn na mètres Maintenant, bi génn na mètres c'est le c'est le gardien de c'est le gardien c'est le gardien de but de Taxi qui va dégager c'est le gardien de but de Taxi qui va dégager c'est le gardien de but qui va dégager Le gardien de de, de, Renaissance qui dégage. Tête d'un jeu de tahiko pour Renaissance. Voilà pour Renaissance. Pour Franc. Euh, fort, faute. pour Renaissance. commence à. Euh, la fatigue commence à se faire sentir hein, du côté de Parce euh, Est-ce que. Koufran, il de boubé, la fatigue commence à se faire sentir ñu xaar exactement euh, sapeur arbitre sapeur nous ñu ce qui se passe mais pour le jeu de taaxi de renaissance il a été agressé par un jeu de Tahikau. mais pour le jeu de Tahikau, lui c'est des crampes crampes commencent à commencé sonal sentir. de taaxi bi jóg na Le euh, jeu renaissance donc donc match de football moom bu demee ba crampe à ci génn rek xamal ni crampe fatigue musculaire là quoi donc euh, ci euh, fatigue musculaire moo koy moo koy joxe ñu xaar taaxi kaw ñu xaar euh, le jour de renaissance il est entouré par les sapeurs pompiers ah il y a plus de peur que de mal parce que léegi jóg jogna waaw ah, jóg na sant de ko Ça ndox une côté ko tuuti ndox ah, il en a besoin nak parce que yu mel mom il faut que mu lal tout ndox quand même parce que. match bi métti na trop match bu méttee méttee métti la ñuy jeunes yi moo tax il faut que il faut que loolu mënul ñàkk il faut que ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñuy laal ndox de temps en temps ñu xool léegi ce que ça va donner coup franc coup franc bi xaw na doy waar de en tout cas si si si si c'est un bon tireur. parce que Balbi, warna war na pas warna dara c'est possible un bon tireur il peut faire quelque chose ah, heureusement heureusement pour pour pour parce que ballon il bu na quelque chose une minute de temps euh, euh, une minute de temps additionnel une minute de temps additionnel ballon pour Renaissance ballon pour Renaissance Le par taaxi kaw la défense de Renaissance veille au grain Nous avons tous tranquillement permettre à ses partenaires de revenir il y a un jour de Renaissance qui est à terre euh, un jeu de temps de renaissance bu euh, heureusement jogna jogna jóg na yooyu je crois que c'est la fatigue defe naa ne fatigue bi la de fatigue bi mo len commencer sonal ni je crois je pense. touche euh, la siffle la fin de la partie zéro but partout entre Taxi et Renaissance euh, effectivement nous avons assisté quand même une très bonne période euh, de la partie et que euh, avec euh, légère domination, certes, de, de, Renaissance, mais de bonnes réactions également de, temps en temps de, de l'équipe de Tahiko. Attendons la deuxième période pour voir ce que ça va donner. Merci. lo hago. hola, hello. Anco, anco, anco, usted. ba léegi deuxième partie tous pour Tahikaou. tous pour Tahikaou. donc dégagement du du jeu de renaissance dégagement du jeu de renaissance changement changement pour un jour pour renaissance changement pour renaissance renaissance moi je renaissance qui sort. qui fait qui sort son numéro 10 ba pare euh, non wala euh, 12 après dugal numéro 17 am ñu xool génn na attaquant dugal attaquant. renaissance ba léegi kon je veux dire que ne ba léegi xelam mi ngi ci euh, marqué un ba léegi xel yaa ngi ci benn marqué un but. coup franc renaissance. Franc bi renaissance ko moom l'arbitre est en train de régler le banc de tous de de de de, de Kaw parce que vraiment il faut que ñi ñi di di am tendance aussi di di di di di bañ a déborder quoi lii moom lii moom non si l'arbitre di ko jóge foofu da nga fay jógee kooku moom mën a dara loolu moom dafa bokk ci si règlement arbitre bi moom bu la ajee da ngay yëgal da donc ñu ñu enfin ce sont les policiers les ñoo qui génne qu'est-ce qu'il a fait lui là ba policiers qui war ko mais toujours nag hein, xam nga la police nag aussi c'est normal bu ñu gisee loo xam ne ci ci yàq la jëm moom par force par force danañ ko danañ ko kii mais pourtant ils ont bien tenu ont nañu ci arrêté euh, discussion amul coow amul non nañu ànd rek. Euh.

Eh, parce que nous la wax du la lañ lay wax comme lu lañ lay wax buñ la waxi demal daf li demal daf lolu mu franc arbitre reprendre partie bi arbitre reprendre bi dégagement du latéral gauche de de Renaissance ah, de la fin de la partie. Marché on va vers le tir au but. On va vers les tir au but. Les dalons, les dalons, les dalons, les dalons, les 0-0 90 minutes 0-0 plus euh, arrêt de jeu 0 8 partout. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je préparé pour la série de tirs au but. léegi daal ñu ngi xaar tiro bi am na benn jour taax kaw bu tëdd ci digg terrain bi am benn jour taax kaw bu bu tëdd ci digg terrain bi ñu xool euh, réaction arbitre bi après ci par rapport ak yi nga xam ne ñoo tëdd ci terrain bi mais dafa war a crampe wala dafa en tout cas xam naa ni coono ko jàpp. mais ces deux équipes yo xamni nak sen sen victoire yëpp yi ci ëpp ay sir ay tiro bi la comme nak c'est comme comme ñi ci ëpp sen tiro sen sen victoire tiro bi la ah attention. ñu xol lan la am lan la am fofu Euh, renaissance pare na ay tireram ba ma ngay dem waaw mais au moment où renaissance di dem taax kaw ñoom ñu ngay gën terrain bi loolu nag moom vraiment du bokkul ci li ci ci ci ci li li gaawal marché bi war nañu mën a gaawantu nag ñu démarrer tiro bi très rapidement parce que guddi na hmm? Ndongo moom mooy door la premier tir de renaissance Euh, le premier tir va être, le premier tir tiré par Renaissance. Renaissance mooy euh, Renaissance mooy son premier tir d'Afar Nabalam c'est le jeune le hmm, donc sa élan de ah Ilma door na dugal na ko ndongo de ah, ndongo de ah, caaxi kaw moo door son premier tir Tahiko son premier tir Nous le premier tir de Tahiko. mu équipe ils ont de bons tireurs xamaguñu nag exactement mais en tout cas d'habitude c'est deux, équipes qui jouent bien les tirs au but. Parce que quand tu tel éliminé. Parce que nous avons un d'ailleurs. Euh, le capitaine de est Djelne Elan. Ah, là. Il Dorna, Un partout. Un but partout entre Il et Renaissance. un but partout. Euh, euh, en tout cas, moom day il est rentré pour les pour le tir au but parce que moom léegi la dugg c'est xam naa buñ koy dugal parce que dëgg tir au but moo parce que c'est un c'est un c'est un c'est un tireur qui na boo xam jusqu'ici bi mu duggee léegi laalu sa bal ce qui veut dire que moom bal bi mu njëkk a laal mooy penalty bi mu dóor bi mu duggee léegi daal bi mu njëkk laal mooy penalty bi muy dóor daal mooy bal bi mu njëkk laal parce que légui la dugg donc souvent entraîneur dañ koy faral di def xol un joueur qui tire bien les penalty bu ñu eggee ci tir tir au but ñu dugal ko dugal ko moy dugal ko uniquement pour les tirs au but Ah mais c'est un garçon quand même qui qui qui mi ngi mi ngi ci def les les formes mi ci def les formes tek na ballon bi defar na ko. waaw ñu ngi xaar arbitre bi mu jox ko mu jox ko mu jox ko ndigal waaw arbitre bi jox na ko léegi jël na élan après départ na dem na dugg na door na dugg na waaw moom li ko li taxoon ñu indi ko moom def na ko li taxoon ñu indi ko def na ko mooy door penalty effectivement réussir na ko ñu xool deuxième tir taax kaw Nous le tireur de Targaou. Mais il m'a l'air d'un joueur qui ne supporte pas la pression. Parce que en tout cas xay tey nga jël élan te dóor bal ah li nga def ni ah, ah, waaw waaw waaw taaxi kaw taaxi kaw taaxi kaw tir et marque ok troisième penalty de renaissance troisième tireur troisième tireur euh, renaissance baa il prend il, il prend tout son temps il prend son il prend son il prend son son temps mu ngi waaw jël na sànn na li mu ci kaay ñëw na jël balam ñu ne jël balam mi ngi placé son ballon teg son ballon attention mooy sa jal boobu bëgguma ko de jal boobu nga jal bëgguma ko de parce que souvent bal bisu su bal bi su kawee rek ci kaw la jëm waaw Soko yoto rek ci kaw la en général j'ai peur pour cette euh, en tout cas il a pris son élan il prend son élan dem na bien tiré mais tire ça parce que en tout cas dès le départ j'avais peur de ce penalty là parce que ballon bi daf ko tegoon fo xamni dal position bi mu ko tegee bëgg wóolu ma ko woon dara dara dara dara dara en tout cas en tout cas qu'est-ce que ça passe Ouais. ah mais man je comprends pas qu'est-ce qui se passe là-bas hein sansız gol nutradın kii moom moom mooy quatrième tiiru taaxi kaw ñu leela xikante na def na ala Cristiano Ronaldo def na ala Cristiano Ronaldo waaw vraiment c'est sûr que le gardien là moom gardien moom gëm naa ne yow yow doo jàpp penalty tey quoi parce que boobu bi yomb na yomb boo xam ne moom segam bi ma dugg moom yaakaar du ma nga jàpp benn penalty Ah, waaw waay nee na moo tax gisoo xool fa mu ngi mu ngi mu ngi tëdd foofu toujours bii moom je ne pense pas que nga nga gënaat léegi mooy euh, renaissance mooy dóor cinquième tiram renaissance mooy dóor cinquième tiram su ko dugalee série bi continuer suko ko ratee match bi yam foofu ñu xool mais que c'est un joueur qui part très décontracté. jour de renaissance bi mi ngi dem très décontracté Ah, xa ni mu décontracté est-ce que du dafa découragé wala est-ce que du dafa mën penalty bu mopp ëpp mom moom ci xaw a jaaxal parce que souvent ça day day soit day découragé wala mu mën penalty bu mopp ëpp gis nga xoolal il est très il est trop relax ce tireur là tireur bi dal xëy na dafa ay penalty moo tax muy muy comporté wu nii mais en tout cas trop trop trop trop trop mais mais cinquième tir bi la de bu ratee ñu continuer série bi euh, taax kaw de tirer son cinquième penalty su ko ratee nag taax kaw n'a plus besoin de tirer son cinquième penalty mais ñu xool cinquième penalty wu renaissance.

mais avec lu ci lu eh, champion zonal Tarko champion zonal taax moi champion zonal taax moi champion zonal Nous ñu vraiment vraiment un aussi héroïque pour pouvoir s'en sortir il fallait que nous am ce comportement là jusqu'à la fin effectivement c'est une équipe de Taxaw très concentrée du début à la fin moi leen valoir cette cette victoire. Euh, champion zonal vraiment champion zonal c'est ce qu'ils euh, ont vraiment ils ont beaucoup mûri nag waaw euh, match final zonal zone 2 ci ñu xool Saturne kii doon final zonal euh, zone 2 mu doon final zonal doon zone 2 taaxi kaw jouer joué ak euh, Renaissance euh, ci de catégorie bi euh, ñu gis Mbaaxaan doon joué également ak avenir ñu gën ko xam ci renu turu référence léegi taaxi kaw ci catégorie bi Mbaaxaan moo gagné référence ñu gën ko xam ci turu avenir par tir au but 5 à 3 5 à 4 dimanche ñu ñëw ci euh, ñaaral xaaj bi ñaareelu xaaj bi ci digënté taxikaw ak euh, euh, renaissance taxikaw ñu def 0 0 90 minutes ñu dem série tir au but taaxi gagné ko 5 buts à 3 donc mu nek final bu neex taxikaw gagné ko champion national je remercier sama caméraman Saturne ak sama beneen caméraman bi di musa donc euh, ñu dox di daje ba beneen yoon ci marché yi di ñëw. Euh, coach euh, ñu assisté à un match de Taxi Kaw un match héroïque nous avons vu une équipe de Taxi Kaw qui a euh, avec une bonne concentration du début jusqu'à la fin mu jox ko victoire yow nga yow yaa coach woon équipe bi nan nga jàngate loolu avant tout dañuy sant yàlla dañuy sant yàlla baax di ko gërëm parce que c'est pas évident maanaam trois treize ASC la ñu woon yàlla tànn ci ñu nag waa Renaissance ñu dem final yàlla jox ñu ndam li avant tout dañuy remercier Pa Ousmane Diouf moom lañ joxoon équipe bi mu nekk course yàlla def mu dem ba ci biir mu xaw a jagadi am ci man confiance bàyyi ma xale yi man ak sama frère sama rak Cheikh Sega Diagne ñu liggéey ci liggéey bu am solo maanaam ci continuité lañ nekkoon rek donc suñu bokk na ci suñu objectif nag parce que euh, ñun mooy li ma wax effectif ñu yor ak euh, dirigeant yi seen euh, objectif dëgg mooy départemental ba régional lii dafa bokkoon ci suñu yoon donc il fallait ñu jël li pour mën a avancer li may wax rek mooy di gërëm population parce que ñëpp jàpp nañ ci joué ko vraiment xale yi ñëw nañu xam na ni engagement lañ joué quoi xëy na li ñu xaaj côté football techniquement tactiquement lépp ñewul mais engagement lañ ko joué dem sëriñ yalla may ñu ndam. j'ai vu ça parce que j'ai vu que l'équipe était tellement déterminée. c'est sur le plan tactique sur le plan technique. Euh, l'équipe de, l'équipe de Renaissance était plus technique. Mais sur le plan tactique, l'équipe de Tarka était plus tactique. parce, que vous avez bouché tous les trous. à yeah. une possibilité pour, percer la défense de, de, okay. de Tarkao. Si so, vous so, avez vu ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait une première finale. Nous avons fait une première finale.

donc euh, moi j'ai remarqué aussi hein, j'ai remarqué moi ça je vous parle en tant que. ce que tu connais. bon mais j'ai remarqué aussi à moins du match euh, l'équipe de Tarko avait senti une petite faiblesse. Ils ont préféré gérer ce, naufrage-là

parce que euh, le record en de de Tarko avec euh, euh, Renaissance Barnico, vraiment nous parlons par rapport aux autres finales de est-ce que réellement nous avons affluence bu mel nous am le nombre de supporters mais en tout cas nous avons assez quand même une très très très très très belle finale Saturne merci beaucoup.